métier bi bi noor bi waaye ci ndox mi génnoon na mais bu ñëwoon tey sonal boppam. waaw man maanaam mooy sa sa sa kër sa kër su ndox mi nekk bi boo xoolee fii sonn na ñu ngi toll maanaam su ko génn moom la ñu mën. വൈദ്യുതി mu ci wàññi fii mën na taxaw ci kaw dal bi fii moo gën a jege taxawal yow daal la gaa yi yëkkati la gaa yi bu yëgoon bi kaw lépp lay tiim ko ñii seen xaj bi moo ñu sonal ba nga xam ne xaj kenn war koo seen xaj yi kenn war koo yar ci kër xaj yi ah voilà bi muy dem dafa waroon a yóbbaale xaj dama sonal ko xaj kenn war koo yar ci kër nag yóbbaale ko moom sëñ bi ah waaw mais nga yóbbaale yaa ko moom yaa ko moom kay comme min daal foofu la foofu la taxaw ci bâche bi ne bâche bi ne day day amaale day amaale taxaw kay day amaale ndox mi ndox mi waaw ñoom ñoo si tur bi. Aïssatou Sarr. waaw tey fii ban quartier la. quartier bi ñaari quartier la Medina Malika ak Jamalaay. lan ngeen di dund yéen waaye Malika. liñ doon dund daaw lu ko gën a pur la ñu dund ren ndax daaw bassin yi ñu fi ñu sottiloon ba ënd ma xaar. sang Mbacke. waaw sang Mbacke la fii mooy fan. fii mooy ñaari quartier la. Malika Jamalaay 2 ak Medina Malika. waaw fii la ngeen di dund yéen. fii li ñuy dund mooy li ñu dundoon daaw. xam nga daaw dañ fi dundoon ino benn inondation bu bu doy waar xam nga inondation bi ñu dundoon ba nit dee ñu ñëw di wax wax wax ba nii gisoo fi benn autorité maintenant depuis juillet la fi ministre bi ñëw monsieur Issakha Diop bi mu fi ñëwee. fekkoon ñun ñu jël suñu moyen ñu jël suñu xaalis ay 600 et quelques mille ba 700 mille pour benn fatt benn canal canal bi ñu doon indil ndox parce que ay bassin la ñu tabax sotti ko suñu koñ bi ñu jël suñu xaalis jënd suñu garawaay fatt bassin yi fatt canal bi ba mu fattu ñoom ñu ñëw fi après le ministre ñëw fi ak le préfet le sous-préfet ñëw fi ñaan ñu ak euh, adjoint au maire bi bi ñu ñaanee ubbi canal bi dinañu indil pompe biñ ko indee le le le 23 août lañ fi indi benn pompe tal ko 5 minutes fayat ko ne pompe bi panne instant bi indi nañ 4 pompe yo xamne dañ naan bu ñëwé rek ne pompe bi panne fayat togat légui léegi août ba légui ñu naan ñu dinañ ko dinañ ko indi kenn mëno mëno wax sa ko woo autorité bo woo dala naan ñi ngi ci yeen légui la ngeen di dund fu mu toll ñun fi toll nii ñu ngi dund situation yu critique parce que mënu ñoo dem fenn daaw jéemoon nañ am sax ay tabax yu ñi abal mais tabax yoy ñoo ñi seeni tabax mënu duñ ko abalé parce que jaboot mënul dëkk ci ay tabax ñi ngi dund ci biir ndox mi parce que ñun ñoo mobiliser nous, ne nous koñ bi bu kenn génn seen kër nous leen dëkk ak ndox mi pour pour état bu ko ne ay jën parce que ñun duñ ay jën ñoo comme ay nous nous ñi ngi dëkk ak ndox bi nous sommes dëkk ci biir ndox bi. nous la ngeen bëgg. waaw ñun ku ñu défaral nous def évacuation ndox bi ay pompe mënu nous dindi li défar nous ay bassin mën na défar ay bassin ay bassin soxla ak lu évacuer ndox mi mu fi parce que nous, bi ñuy dañoo jënd ay terrain ñu dem ñu légaliser ko bi ñuy tabax ñu laaj ñu ay autorisation de construction kon loolu ku la ko laaj boole na la ci goxam ñu signal ñu suñuy kayit ci chef de quartier signal ñu ko ci maire yi mais jusqu'à présent bi ñu dund ci ndox mi benn autorité mosu fee ñëw taxaw ne ñu massa wala def leen solution bi amul ñi ak lu metti di lancer un message les autorités sénégalaises ñu ngi leen di xamal ne am ngeen population yi dund lu metti bu ngeen ci jógul nag dinañ jéem a jógal seen bopp ñoom waaw ah ci ci ci comme li li li dëkk bi di def rek. mooy la parce que instant bii nii ku fi def benn benn violence ñu reconnaître la kon ñun dinañ delluwaat ñun fottaat suñu bassin. fottaat canal bi dinañ fottaat kanaal bi ba mu fott. parce que xaalis bi ñu fi defoon. yomb nañu wër sëñ yàlla tamit bañu leen wàcc ci mbedd mi bañu ñu wàcc ci mbedd mi baare tëli bi. parce que tëli Malika léegi benn la xam nañ ko mooy VDN VDN euh, noor bi fi la jaar VDN fi la jaar te boo ko tëjee tëj nga génn wàllu Sénégal dinañ ko tëjaat nag parce que c'est pas. voilà vous vous présentez. Oui, je m'appelle Aïssatou Oui, alors aujourd'hui, euh, quelle est la situation ici au niveau de vos quartiers Une situation très difficile, très très difficile, plus pure que l'année prochaine. Parce que cette situation, on a vécu le plus pur des situations de notre vie. On a construit notre maison ici. On nous a évacué beaucoup d'eau. Les autorités sont venues pour nous dire qu'il faut, euh, il faut dégager ce qu'on a fait pour... Euh, pour, euh, il faut bien comprendre. Voilà. en français. En français, bon, je vous salue. Donc, cette année-là, on vit des situations critiques. On, vit dans un calvaire que les autorités de Malik ne le savent pas à chaque fois que si, on les appelle, ils nous donnent des raisons que on est avec vous, on est avec vous. Donc ils sont avec nous, mais ils, n'essaient n'essayent pas de nous faire sortir dans les eaux. Ce qu'on vit là, c'est ce qu'on visait l'année dernière, jusqu'à qu'une personne ait décédé l'année dernière. Mais cette fois-ci, cette fois-ci, ça, c'est plus être pur quoi. C'est plus pur que l'année dernière. Jusqu'à présent, les autorités, si on l'appelle, ils, nous disent que on est avec vous. Vous êtes fatigué actuellement On est fatigué. Donc, on n'ose pas faire sortir dans les rues pour, pour barrer la route. Pour barrer la route parce qu'on est fatigué. On est des Sénégalais, on vit au Sénégal, on vit dans la commune de Malika. Les maisons là, on les construit avec autorisation. Ils nous ont demandé notre demande d'autorisation, on a payé notre maison on a payé les autorisations de construction à la mairie. Mhm. Jusqu'à présent, la mairie n'a rien fait de nous. Et aujourd'hui, euh, presque toutes les maisons sont inondées. Toutes les maisons sont inondées. Sont inondées et puis il y a, une épidémie qui touche les enfants. Tous les enfants sont malades ici. Et parfois, il y a des serpents ici. Même il y a des serpents qui sortent ici. Toi, tu l'as vu. Tu as vu tout de suite là. Tu nous as dit que c'est celle qui sort là, c'est une serpent. Je l'ai dit que ça peut être. Parce qu'il y a beaucoup de serpents ici. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez Donc, nous voulons des bassins de rétention ici. Les bassins, c'est pour garder de l'eau, mais ce n'est pas pour euh, prendre les bassins pour les sortir dans les populations. Et des canalisations. Et des canalisations. Les bassins, c'est pour, pour garder l'eau. Mais pourquoi ils construisent des bassins pour les sortir euh, pour les verser dans les populations. Maintenant, aujourd'hui, vous alertez si rien n'est fait. Aujourd'hui, nous voulons une aide, les aides il faut que le président nous, aide pour construire ici des bassins. Deux ou trois bassins pour nous faire sortir dans les eaux. Sinon Sinon, on va faire ce qu'il ne veut pas, c'est faire des manifestations. Ce que le président ne veut pas et les autorités ne veulent pas ça. Donc on va faire une manifestation pour essayer de barrer la route pour que les gens nous aident et nous faire sortir dans les eaux. merci. moom El Hadj ñu jox kàddu daa xoolal xoolal xoolal Fap bi ci biir ndox mi lay tànn. mi ngi koy jël. Fap bi da ngeen koy jël ay xeer ba mu taw wala ngeen wax mu ngeen wala yàq moom. Fap bi ñu ngi taxaw yor seen yàq politicien bu fi jaar ci élection yi dañ leen topp ay